Aliou ma dem wala waaw waaw tas na bay bëgg a dee nee na Aliou ñëw ko ci ana Adama Ndiaye ma ñëw wala Adama Ndiaye dofu tonnerre anamu Abakara li ñuy way yow lañ ko tuddee a wàcc fii teral ma barke Rasulullah ana Adama

ci rek la. laajal kii kan ak mbokk yi ñuy suivre ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu di leen fii ci stadium Iba Mar ci journée yi nga xam ne Petit Production moom moo ko organisé tey yemboog 6 mars 2022 ndeysaan mu ne ki féete à droite mooy kan Bébé De Gaulle Boucher numéro ak Bébé De Gaulle Bébé De Gaulle moo féete à droite Boucher 2 moom moo ngem boo lu weex li Bébé De Gaulle ak Boucher 2 ñu ngi noonu jàppante ci digg géew bi Boucher 2 am ñaari loxoom ci ngemb mel ni ku koy waaja bal waaye bu ñu xoolee bu baax ki nga xam ne ni moom mooy Bébé Dégol benn loxo la jàpp ci ngemb ndengeñ ko génnewaat na ko mu ngay dóor benn loxo lay jàpp si ngemb génne beneen loxo ba ndengeñ di dóor ñu ngi noonu seen jàppante baa ngay bëgg a yàgg Bébé Dégol ak Boucher numéro 2. bébé de Gaulle ak Boucher numéro 2 ñoo nekk noonu attention bébé de Gaulle moom mu ngay liggéey mu ngay liggéey ca suuf mu ngay liggéey ca suuf bébé ak Boucher numéro 2 ñoo ngi noonu mu ngay dóor Bébé Dégo lay dóor noonu Bébé Dégo rek di dóor waaye Boucher numéro 2 moom mu ngi cherché ngemb mu ngi cherché ngemb Bébé Dégo ak Boucher numéro 2 waaw arbitre àtte na leen lu xew mi wala kan moo dem ardo Boucher numéro 2 dafa dem Ardo il paraît non dañoo mi-temps voilà mu ngi noonu arbitre sifflé waat na seen diggante Boucher 2 ak euh, Boucher numéro 2 attention Bébé Dégol la ngay dóor song na Boucher numéro 2 ak Bébé léegi nag metti woon na metti woon na sànq ba Boucher numéro 2 génn géew bi da am lu muy réclamer waaye arbitre da ko ñëwal nga bëre daf ne woon adversaire dafa jàpp ci létt yi xaw ma rass yi looloo tax mënul woon bëre mu réclamer waaye arbitre daf ko ne nga bëre Bébé a ngi noonu moom moom la ñu xaw a jàkkaar lool Boucher numéro 2 moom moo ngeem moo ngeem lu weex ñu mu ngay jéem mboot mu ngay jéem a mboot lan lay def nii. lay def nii mu ngi koy imposé mboot bi waaye gis nañ mu xaw ko réussir tuuti parce que adversaire am dafa trébuché wala perte équilibre def debout mu ngi koy tantewaat mu ngi koy tantewaat mu ngi koy tantewaat lii mooy dama lay mboot par force. lii mooy dama lay mboot par force mu lay neex mu lay naqare dama lay mboot <laughs> waaye làmba lay neex mu lay naqari dama lay mboot mais Boucher numéro 2 nag bëri na li muy réclamé de mu ngay tàllalaat loxo lan lay wax arbitre nee na ko bëreel arbitre nee ko bëreel arbitre nee na ko bëreel Boucher numéro 2 ak Bébé Dégol Bébé Dégol à gauche Boucher numéro de à droite door na léegi Boucher attention jàppante waat na ñoom ñaar Boucher numéro 2 ak Bébé Dégaule ba léegi dara amagul Modou Anta Modou Anta maa ngi lay ziyaare Boucher numéro 2 ak Bébé Dégaule ñu ngi waaw yàgg na kay suñu mi-temps yeeg plus de 3 minutes ba léegi dara amagul deuxième combat bi attention lan la Boucher di def bi Dégolle day génn géew bi wala. Hmm. attention lan lay def mu koy tegal 16 wala mu koy mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy lee mooy lan mooy jongle tegal 16 mooy beneen bi lee mooy jongle mu koy jongle waaye dara amul. ñoo nga ca yàgg na Bébé Dégaule ak Boucher numéro 2 arbitre sifflé na léegi xaajale ñaari mbari diggante Siteu euh, safurla diggante Bébé Dégol ak Goussé numéro 2 mu xaajale leen ñoom ñaar wala mu àtte leen jox leen avertissement ne leen bëre leen li ngeen def léegi du làmb ba mu ca nag dañ defaat nañu defoon rek mais Goussé mii wallaay Goussé jiili rek la dàq xeex jiili buuse mi yow rek la dàq xeex buy dóor day gëmm ndeysaan jàppante waat nañ jàppante waat ñoom ñaar buuse ak bébé dégol buuse ak bébé dégol attention nga koy forcé buuse nga ràcc ba mu yaa Cissé ak Bébé Dégol Bouss Bek Bébé Dégol affaire bi yàgg na vraiment combat bi yàgg na caatu rëbës en tout cas làmb ji moom neexul dara lu ne ngay wax lu ne lan lay def day sifflé waat leen jox kan avertissement wala lan la bëgg avertissement encore pour Bébé Dégaule pour passivité nee nañ ko bëre woo da ngay bëre rek coow li jeex arbitre sifflé waat na génn seen diggante diggante Bébé Dégaule ak Boucher numéro 2 turandoom Boucher moo ko andi arbitre sifflé waat na génn seen diggante Bébé Dégaule lan moo am temps ba jeex na temps ba jeex na dafa mel ni Bousse moo jël victoire ba voilà Bousse gagne par avertissement et c'est terminé